ya silola maa ngi nuyu waa diaspora bi yëpp ah rawatina nag seen rajo TV bi macha allah Kéwoulo maa ngi leen di nuyu bu baax jiital ci nuyoo bi seen DG ah di jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxo sama càmmiñ ngay paara mu àggale ma ko ci moom di am contentement lool lool daje ak yéen. ñun nag yàlla dafa def

depuis 2012 ba léegi nag ma yore ko macha allah. boobu nag mooy sama premier dugg ci mbootaay parce que damay ñëw de 2008 ñoom bi ñu koy créé dafa fekk juste samay doog a ñëw ko Comico bi ñëwee fëgg sama buntu côtoyé ma wax dañoo bëggoon nga bokk ci bureau bi ma ne leen non pour le moment bàyyi leen ma nekk ci membre ba ci kanam. ci kaw loolu nag à force ni ma leen di jege xam ci laa dem ba xam ne ne man pourquoi pas ñii ma mën nee naa jàppale. ah yàlla def nag bi mu jëwee ci sama loxo nag comme am naa tuuti expérience ci comptabilité te am naa expérience tuuti ci comment nu ñuy nu ñuy téye njaboot gi ma ne xaaral ma waslu ci àq ci noonu nag laa ko jëlee macha allah te bi ma ko jëlee boobu ba léegi wax dëgg yàlla ah ca kaw ca kanam rek. bu dul GIE bi nag ki activités yi ma yore bari na de ndax dama nekk ancien élève du lycée Abdoulaye Niass de Kaolack. Nous ah, avons créé un euh, mouvement ma nekk fa trésorière ah yàlla def ma ñëw am coopérative pour mag bu plateforme nationale de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Nous avons fait ñu tabb comme secrétaire te PENOA day avec avec le gouvernement parce que nous euh, avons en convention le gouvernement bi di liggéey ak ñoom ah bu loolu weesoo yàlla def bu yàggul rek ñu defaat assemblée générale tabb ma encore ma nekk trésorière ah xam naa ne ña fa nekk de gënuñ ma ko yeyoo de waaw ndax xam naa ne bu fekkee mbirum financement mbirum yore koppar ah wóolu naa ci sama bopp. xam nga jiite jigéen yombut ndax ay jigéen boo leen di jiite te gisuñ ci seen bopp dañ lay wan ginnaaw waaye dafa am lu ma leen jàngal ci yorin xaalis bañ ñaa ko ba man duma laal xaalis jeune fekk fais damay bàyyi bigo bi ku ci nekk sa rôle nga doxal ko mais bu ñuy daje chaque le cinq la ñuy daje ku ci nekk la ma la dénk parce que dañu am leket boo xam ne bii pour dóor mu daanu la dóor mu daanu mooy maanaam nga jël 5000 tekki 500 loolu buñ ñu paree ñu ngi koy séddoowaat ci suñu biir pour mën a gën a duufal suñu kees ñu am natt euh, euh, natt ndawtal ñuy def 20 000 par mois nag ku am xew ñu jox la 1 million nga xew sa xew suñu paree am nañ benn financement boo xam ne bi ci suñu 2000 2000 yooyu moo indi financement bi ñu commencé ko 50 yi ba tey ñu ci 1 million te loolu nag kenn fekk si wuñ ci de xam nga lu ko waral jub jubanti jubal bi nga xam ne moom la président di oote ñun daf ñu cee fekk ndax su ma ñëwee ku ci nekk la nga am xam naa ko damay ñu ubbi sama kayit toog diw ñaata nga yore nga wax su manqué cent francs je ne cherche même pas à comprendre fayal damay dem ba bu ma ñëwee ku ci amee xaalis sax sa fit du toog da ngay gis tant que audité wu ma la ba ma xam ne ne normal nga doo nekk si jàmm trésorière ba yow xaalis ku may jox ma ne ko demal ci trésorière parce que xam nga bu fekkee ne yaa ngi liggéey am sa as tuut nga jiite ay jigéen am na nu muy am demee boo jëndee oto sax ñu ne sa xaalis ngeen ko jënde

peinture, fruits et légumes jardinage micro jardinage Euh, pratiquement femmes diplôme pratiquement plateforme lu formation par l'appui de 3FPT Nous, nous fait formation vraiment remercier de passage

bu la cinq jotee ku ci nekk la ngay yëngu rek da ngay andi ñuy jëndante ci suñu biir même boo ñëwul dangay oote wala nga dugal ko ci groupe parce que am nañu benn groupe nga ne damay jaay lii am naa lii am naa li bu ko defee kaka soxla ñëw jëfandikoo ko donc la ñuy jël di yóbbu ci àll ba ñun lañuy jël def ko ci suñu biir vraiment côté boobu moom macha allah dañ ciy sant yàlla parce que dañuy jàppalante suñu biir te képp ku am soxla boo ñëwee GIE bi fajal la ko kenn dematul ci biti wala nga dem banque dem di lebi wala leneen da ngay ñëw ci ñun ñu régleel la ko ci sutura ma sàmba du yëg ma demba du yëg ñu am jom nag ñu am jom nag parce que loo leen jox ñu delloo ko parce que épouse militaire comme ni ma leen ko waxee dañ am jom dañ am fulla dañ am fayda dañ fonk seen bugam kër yi te xam nañ ne seen bugam kër yi fu ñu nekk moo tax toujours dañ leen di bàyyi xel dañu toujours éviter ñu ñuy dégg ci yenn yi jëkkër ak jabar dañoo jegeyoo te gis nga li nekk ci ñoom ñun moom la ñuy jàngal ñun ñu jàngal ko suñuy doom yi ndax pratiquement ñoom nekkuñ fi ñun ñoo yore kër yi da ngay def ko def mission def deux ans trois ans sa jabar mooy jël mooy gérer mooy jël lépp c'est pas pour rien ñun bu ñuy takk def euh, investigation ci ci ki ngay jël parce que militaire bu buy takk jabar da koy xool bu baax wala mu koy jël bañ am sa accord ba ba am accord gouverne kii bi euh, corps bi ñu doog la mën a jël kon xam nga yow mi ñëw ci kër ah sa jëkkër nekk général wala commandant wala lieutenant da nga waga don ko discret da nga waga don ko régler da nga waga don ko yem parce que ñom ñoo téye société bi tay buñu togué ba guerre amut yenn njub la yenn ñaawte fi amut c'est grâce à ñom suñu jëkkër yi li wax tout le temps ñom naan on nous tue mais on ne nous déshonore pas ñun aussi nos femmes militaires

parce que ñoom nee nañ duñ seetaan seen jigéen yi di sonn te ñoom ñu nekk fi kon xam nga li may wax si militaire ak euh, euh, oyof gi mu oyof ci ci ci ci mun munti doon ni ñu oyofee fépp lañ ko oyofee vraiment gàcce nga laa ma ku ci nekk ci ñun rek autonome nga demal nga sa bopp ñun ku ci nekk ci ñun fi mu toll nii yaa ngi demal sa bopp tey boo demee ba ci biir ba gis lañ fa exposé ñu toog nga def fa interview ku nekk wax la ci la mu yëngatu di nga xam ne ne ñun vraiment ñun

kenn gënuñu ko yeyoo on est des épouses ñun ci kër gi lañu bokk des fois dañuy fàtte nag dañuy fàtte de waaye nag ah ñoo ngi fi de te ñoo ngi fii di def lu baax kon nag nañ ñu gestuwaat bu baax a baax a baax. ba noppi ah yii waaw bu baax sax. waa man président de la république Sénégal dama ko nawlu parce que dafa doon ko yaru moom boo ko gisee muy wax jafe na nag tey na dal na. yaru na vraiment loolu mom je tenais à le dire té fi mu bugg ag agalé sénégalais Sénégal buñ ko jappalé tout rek may ko parce que da fi fekk lu metti donc il faut patience pour mu mun réaliser tous ses rêves té rêve bi mooy Sénégal jëm ci kanam Sénégal dootul jigani fenn Sénégal lépp lu mu bëgg du ko outil da koy ñëw fekk ko fi dañ ko jàppale ci loolu buñ ko ci jàppale rek macha allah dañu am ndam. waaw man li may wax si jigéen ñi mooy nañ gën a góorgóorlu rek mm-hmm. gën a takk sër yi te ñu booloo doon benn gis nga fi yàlla tere tere ko fi bu fi ak amee ñun ñoo fay jéetu ñun ñoo fay jéetu def lépp yëkkati une somme joxe andi bâche parce que am nañ ko andi chaise parce que am nañ ko andi lu ciy dem yépp ñëw nag taxaw nag yore togg géeg lekk béeg lépp jusqu'à la fin doo am dara balay say mbokk ñu dina fekk ñu defar na lépp xew bi yëpp la même chose non seulement dinañ la jox un million mais ci kaw un million yi ku ci nekk day ñëw ak askan ak yéenam yow pa soo paree sa xew bor doo ko am de au contraire da ngay defaruwaat ndax dimbali gi ñu day dimbali kon macha allah vraiment gàcce mbaa laa ma daal j'ai eu sa jëkkër mais nag dama am chance am équipe bu baax bureau bu baax bu may àndal ñoo xam ne fa xasaluñ ma. parce que bu fekkoon ne lu ma wax ñu teggi kon amaana bàyyi wala tay di du ma agsi mhm. mais luma ma dugg rek dañ ma wolu wolu go xam ne dama dem bu mu jégué dama né ah je n'ai plus droit à l'erreur luma ma ne leen atelier ñu na fekk ci nañ la ci kon nak sante yalla am nañ fi ñaari billet marqué benn billet bi ñun ñoko ko utal bop moo benn billet bi général Mbaye Cissé moom moo ñu ko jox ko tirage ñu gagné mais alhamdoulillah nañ ñu social aussi ah yi ci lañ dëkk fi comico du mane ne comico sax mais aux alentours di ko mais ak mbokk yi ku munti doon képp koo xam ne kii am nga soxla boo ñu fëggee ñu fajal la ko yàlla dimbale nañu côté boobu vraiment sama mot de mooy jaaraama macha allah Géewlu Coro Maymuna Géey Paara suñu càmmiñ ju baax a baax a baax ndaxte tey jii am rôle bu mag bu muy joué fii Géey Paara ku ko kenn laajteetu ko ci charisme da nag te li nga koy gis nii noonu la mën a sonnee ci doomu aadama nit ku baax nit ku oyof man bi may accoucher sama ñaari doom yi moom mi moom ma yóbbu moo njëkk a ci samay nopp ay doom samay doom yooyu tey macha allah premier rek la ñuy jël ci sa kaas ale xol bu rafet la yor bañ naa ko dama leen ko bàyyi leen nee naa ko man ñaar ñu mujj yaay seen papa parce que bu leen di mayee yaa leen pay ndax yàlla dafa def nag bugguma ci dugg parce que damay bañ sama xol tooy ndax su ma sañoon tey sama borom kër nekk fi mais dafa génn àdduna moo tax ma mujjee ko ndax damay bañ yàq interview bi di ko ñaanal yàlla xare ko aljana lu rëy la non su ma bàyyi wutoon kon du ma agsi fii bu doon su ma jógee mu ne ma toogal kon amaana man duma ma agsi fii mais su ma daan dem sax daf may gunge ñooy ànd ñooy ànd tout le temps ñooy ànd kon loolu sant yàlla yal na ko yàlla yërëm te xare ko aljana di ñaanal suñu waaye daw la yu génn àdduna yëpp yàlla yërëm leen jéggal leen seen bàkkaar te xeere leen aljana incha allah ca kaw ca kanam rek incha allah man la soxna Nogay madame Ngom euh, di commissaire au compte GIE Sopp sa jëkkër li ñu fi boole tey mooy journée bu espéciale journée boo xamante ne journée contentement la mais journée boo xamante ne nii bu kenn mënul naataango ci mbégte parce que kuy commencé ci ay téeméer téeméer di cotiser di dem ba léegi ñu yegg ba tey ñu ne dañuy joxe suñuy terrain kon loolu sant yàlla la te lu bari jaar fi ndax biee màkk aw na fi lu nekk jaar na fi waaw man dama ne dëggula ak franchise ak tamit euh, gouvernance bu dëgër ndax président bi yàlla présidente bi yàlla dogal na dafa dëggu franche dërëm du manqué ci fi ñu toog lañ koy lijjanti ba mu mat bureau bi yëpp kenn du manqué le dërëm dañuy toog lijjanti ko ba mu mat ñu dem lépp leer naññ transparence bu ñu paree leeral ñëpp mbooloo mi yëpp balaa ñu faa jóge ñu xam la fa nekk xam li ci kees gi ñu jóg dem amul clan amul nëbbatu amul làqatu dëgg daal moo ko lal vraiment alhamdulilah. mbooloo bi ñu booloo. bolo biñu bolo deug biñu deug ndax dinañ ñew réunion bureau jàppante def lépp mais buñu ñu dañuy andar sur le champ deug moko ko waral. GIE bi dinañ def euh, céréales dinañ def euh, transformation fruits et légumes couturière yaangi ci euh, coiffeuse yaangi ci GIE vraiment. lépp a ngi ci biir GIE bi jigéen ñi daal kenn toog ci teinture rek tout la ñuy def tey ji boo ñëwee léegi da nga fa fekk exposition bi te lu réel la loo xamante ni ñun ñoo ko liggéey liggéey lu wuñu ko mbay meek lépp ñu ngi koy def kon sant yàlla jamono ji man li may sàkku li rëy ba rëy mooy que ni yàlla dimbale suñu présidente mu gën a dëgër nguur gi buy gestu na ko gestu ndax xam naa ne man en tant que commissaire aux comptes bu ko yàlla dimbalee kattanal ko ñun lépp lu ñu bëgg dañ koy am gërëm di ñaan yàlla nag nii ñu commencé yàlla nañu yeggalee ak alhamdulilahi rabi alamin dañu am président ñaari président présidente GIE ak présidente euh, association bind nañu jooy nañu def lu nekk nañ xalango nañ si tali sax pour ñu yokkoon suñu pension yi te jàppaluñu suñu njaboot dafa mel ni ñun bu bi daal dafa mel ni ñun bu ñu demee dañuy daw suñu doom yaa ngi ne suñu kër jàng ba ne at amuñu liggéey amuñu dara mu ñu jëloon suñu doom yi liggéey sax mu tane mais bureau boo dem sa doom bureau bu mu dem ni ni ni orphelin la rek dafa mel koy daw ñu ngi ciy sàkku tam le général Birame Diop si Birame Diop na dimbali veuve ku am yëg la ndax quartier gi yëpp changé na à cause de Birame Diop ah eh, eh, ñu ngi dimbali veuve yi mais veuve bu doom mag ku sa doom mag dootuloo di dim dootuñu leen dimbali. am ñu ay liy ma sama man mi maa quitté par sama doom ah, ah, def na informatique informatique industrielle la def ba pare di jëlee tam ma nga ne mënul fi xam am liggéey ma nga sama kër am na 30 ans ñàkk sama kër sama ci ci sama sama charge la nekk. waaye nañ ci benn nañ jàppale veuve yi waaye.

ba ngeen ñoo gis ngeen bi ngeen de ñoo am ngeen problème de ndax ñaari yoon yëpp ndox la ndox fa fay del ci commune ko mi ko do ndox yo nañ gis ñoo xam ne nañ ay ñett fa ñeent fa dañoo am ndox ñu dañu ne xaaju guddi la ñuy une heure du matin deux heures du matin na tax sax ñu am ndox ñun dal ñoom cité commune ko dal ñi ngi ni dal son non man nak personnellement damay damay jaay sama kër toxu ndox mënuma dug mënuma dëkk ci ndox ku dégg bëcëk bo boo jaaroon sama kër da nga naan ma dédé ndox ma ci talibalay dem ñun dal depuis ñu ñu sen tali yi ci lañu dee amul amul canalisation amuñu dara ñu dimbali akrim bi maanam baqarawan silayan bi aku imana la wallahi ndol makaya du Sénégal, dans sa volonté de rapprocher de la justice des justiciables, qu'elle a installé maison de justice. Parce que dans seetlu population bi parfois dañuy ragal tribunal vous ñu déggee tribunal rek dañuy parfois nous aussi duñ comprendre parfois aussi par manque de moyens Pour nag pour justice bi ak askan bi du Sénégal fi Dakar boo quatre maisons de justice y a Grand Yoff HLM amna na Kër Massar am na bu Sicap bi nak mo couvrir fi yembal gi bu Sicap bi ngeen mi Pikine jaune Jacques Jacques euh, mbaaw bi euh bu ngeen bok qui nak malen di ñaax yeen pour mi goor di ñeppul nak <laughs> amul discrimination conseil soxla mi orientation assistance juridique ñew leen ngeen maison de justice tout est gratuit. machallah problème boo leen mënta am mais problème location nga par exemple bailleur ak locataire am ay problème bo leen ñëwee fofu non kenn ku ne dañ ko leeral wax kenn ku ne droit am ak devoir am de même que way dencañ parfois problème ménage am bo leen ñëwee aussi dañ leen xélal kenn ku ne ñu wax la sa droit wax la sa devoir problème litige de voisinage bo xolé tout ce qui est civil dañ ko fait traité tout ce qui est civil dañ ko fait traité bo leen ñëwee dañ leen déglu.

lépp loo sumb rek yàlla na yàlla jàppale ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax jafe na nga gis autorité bu jege askanam boo xam ne buñ ko oowee mu ñëw su la neexoon nga toog yónnee waaye defoo ko da nga déplacé wu depuis le matin à huit heures fekk na ko ca Kaaba kon nag jaaraama man daal xam naa ne maa ngi lay ñaanal maa ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax te xam naa ne waa association bi si ñëpp lay ñaanal su wóor weesoo ah monsieur le la ndaw mu koy sant ñu lii rek la ñu moom boo xam xewle yaakaar ko mu ñëw teew kon nag jërëjëf ah di nuyu nag les marraines les marraines moom dama ciy su ma ko commencé tey moo ko àggalee

boole ci ak moyen Anne Marie yow dama lay ñaanal dama lay ñaanal bu baax a baax a baax su ma jógee ci Anne Marie ñëw ci sama seex muy madame Aïssata Ba mun naa ne su ma ñëwee micro tey sa jaar sa Aïssata Ba Aïssata Ba yàgg defal Comico nag yàgg defal Comico tey jii Comico lu mu am benn Aïssata Ba contribué na ci fukk kon yow Aïssata xam naa ne day yàgg rek lay da nga doon madame la maire incha allah. Seyda loolu yaa ko def si ñoom yaa ko def si ñoom mu doon ko ñàkk ki ñaan préfet kii mooy yaa say daal kii mooy fekk ko am 60 mënul jàpp mënul sangu set bus na wax bu demee ci moom mu jàngal ko ba mu mokkal ko te kenn du xam kii mooy yaa daal mooy tayloo ay mag yoo xam ne 60 jëm kaw ñuy tari alxuraan mu def ko bés bu mag macha nekk gidd di dem màgg di gindi nit ñi tiiwa yaa Seydaane yaa Seydaane defar na ko bi ko ñun de ñoo dàqoon baal ñoo dàqoon sabar yaa Seydaane ñoo ne ba léegi buñ ko bëggee def sax dañuy mës ba tax léegi dugal na ñëpp ci diine bi yaa Seydaane yal na la yàlla fay nga àndal sa doomu nay Xadija moom sama grande sœur la di ñaan yàlla ànd bi yàlla na yàgg su loolu weesoo nag j'ai soog sa jëkkër yéen moom du ma tàyyi di leen gërëm di leen sant ma mën tey yéen la bureau beeg membre yi ñëpp yéen la yéen moom lu fi am rek tey jii yéen la waaye nag dama fi am sama grand frère bu fi nekk boo ma woon jël parole sax te muy Kalidou Mbodj ana Kalidou ana Kalidou Mbodj sama grand frère moom boo ko ndey bàyyi ñëw ne ma sa bés bi damay ñëw bokk koog yow Kalidou bëgg naa la gis li sama wet di remercier ki nga xam ne bii passé moom mu yóbbu Maroc muy Adja Diagne ñaar ku ñàkk Tijaan moom moo nekk village artisanal bu Rufisque dafa toog rek ba mu bett ma BCS Adja Diagne yow sama ànd ak yow du démb du tey démb la fekk si samay doomu ndey di bañ ñaata lu mu ko tuddee doom su ma naree nii damay bañ ndax kenn ku ci nekk ci yow bu fi toog rek am naa lu ma mën a wax ak yow. biir seet nag moom yéen moom yéen laay mujjee. ndax ILSEC ILSEC lu ñu mën tey moo ko waral ILSEC lu ñu def tey moom la ILSEC moo jóg di jàppale jigéen ñi ILSEC moo jóg di jàppale ndaw yi ILSEC moo jóg di jàppale paa yeeg màgget yeeg yëpp ILSEC ñoo leen jàppale. bravo euh, à notre DG Tongal rawatina suñu directeur Moussa Ndiaye sama chef d'agence nga ni Mansour ku ma fa yóbbu mu financé ko. ñii 5 millions ñii 1 million ñii 10 millions tey mu ñëw fas yéene ñëw andi na le budget de 100 millions. bravo à Mansour bravo à l'UNICEF CSB bravo à notre DG vraiment kontaan naa ci équipe les chefs de la kontaan lool lool lool lool lool sax ma bàyyi sama grand frère rek ndax wow euh, ma woon jël parole sax jël parole kon nag Kalilou. Mbodj Fall fay naa la wóolu ba surtout te Mbodj Mbodj nga tey yéeru Mbodj. faj faj faj faj faj tey de sagal nga mbóojeen lii de moom ndam la lu toll nii lu rëyee nii macha allah yàlla kum bëgg rek la ko defal eguloo ci àjjaratu rek waaye soppi ko mu subhanahu wa taala yàlla na la yàlla dafa cet kontaan naa ci yow yàlla na yàlla kontaan ci yow te du ma rek nga teral teral nga say mag teral nga say rak yàlla na yàlla teral yoo am kër fële ci kaw la mu nekk litige mu nekk ay millions. ñu bëgg ko ci loxo yi moom moo fay yëpp a ci bët. tàccu leen ko ay kër ñu ne déedéet kër ñu ne maay fayaat yëpp na njabootam te yeneen sala salaam mu ne képp koo xam ne sàmm nga buum mbokk ba si yow man sàmm danga may jay képp ku teg boobu noonu dinaa doog yow. di nuyu tamit ki nga xamante ne mooy marraine euh, bis bi. Euh, dégg naa déjà la présidente mu doon wax ne ne marraine bi daanaka sax moom mooy idolam euh, nit boo gis rek il faut nga am sa idole xëy na idole bi moo lay won yoon yi moo tax tamit ngay topp yoon bi en tout cas ñu lay dalal vraiment euh, di nuyu le délégué le coordinateur des délégués de de Comico monsieur Diallo le président de l'ADECOM de Comico di nuyu ñeen ñëpp daal en tant que représentant de l'État comme kii lu mu wax nee ne représentant de l'État sous-préfet moi délégué de président de la République moi représentant de tous les ministres ah boo nekk sa gox boo amee ay activités yi am nit yi ñoo bind courrier ñoo né ne ah, préfet ñun dañuy organiser ben dajé bu ñu sayoon nga tawé ci dajé bi ah en tant que représentant de l'État président moom mënu ñoo comme ñoom ñu ñokay représenter dafa bax ñu ñëw approprier bis bi ndax lan dama gis ni GIE bi ñu ci bëggé dañuy wax ni depuis 2008 mu ngi dox

def nañ ko si jàmm salam salaam kenn amul ay cramp wala ay vertige nga ñëwaat encore nga ñëw nga ne ngoon bi di ngeen def exposition seen produit ah céréalier mooy li ngeen am transformation yépp te gis naa li ah lii moom lu am solo la euh, souvent dañuy wax ni état mënu def yépp il faut gox ku si nekk dañuy nit yi dañuy rassembler seen bi toog bu ñu ñëwee ne ne dañuy mettre en place benn GIE sànq dama doon laaj sax ma ne mais GIE bi certainement am na partenaire bu leen di accompagner bon comme ñun ay représentant l'État on est on est un peu curieux dama gis ni ñu bind U IMSEC ah IMSEC laa xam c'est un partenaire du GIE bon xamante ne les loo muy ressources financières bon leen di accompagner parce que l'autre, tamit lu am il faut moi am leen di accompagner parce que affaire Khalis, lu sensible le sensible il faut moi am ay partenaires financiers ñu leen accompagner euh, tamit bi ngeen ñëwee nga leen di joxe ay ay terrain ma ne ah loolu moom lu ma parce que souvent dañuy wax ni góor yi ñooy outil ñooy la plupart du temps boo nekkee chef de famille yooyu yaay dem di outil mais dafa baax aussi jigéen yi di outil di am ay seen seen seen kër des fois dañuy gis association des femmes juristes yi ñu bëree dañuy kaas dañuy wax ni l'accès à la terre bon peut-être xëy na la ñuy gis ni jigéen yi ñu si bëri du ñu

Je y ñoo xamante ni seen njëkk yëpp ay militaire lañu parce que ah sous-préfet moom du militaire ah comme souvent ay autorités administratives le destin a voulu qu'on habite loin loin de de Asegna en hein, délégué comme vous l'avez wax Comico dem na ba am six quartiers ah bu yeboo yenn quartiers yi nekk aux a yenn cités ce su fekkee ne répondre à certains critères Vous ngay boole parce que vous ñu waxee ay cité Ivnia ay cité Ivnia ñu si bëri xamuñu mais avez ñëwee Comico

parce que gox yu mel ni na am case de tout petit pour que mm. la petite enfance xalé yi gis sen bop ci donc vraiment j'étais tout le long juste di encourager cette initiative bi ngeen di def chaque fois que de besoin bu ñu amee euh, occasion pour accompagner leen dinañ leen accompagner bu dé ci walu appui conseil ñu en tout cas c'est une très belle initiative mm. c'est très rare la plupart li ngay gis GIE yeneen ak sont la mais comme sa dom lu mu wax walu souf parce que GIE mom da ngay xalat xol lo xamante

comme lu ko Adja waxee sànq ñun ñooy ñooy représenté UIMC mooy institution de microfinance ñu nekk partout au Sénégal ñoo ngi ñëw si tout directeur général Ousmane Tongane dafa nekk en déplacement moo directeur de caisse Moussa Ndiaye moom tamit. nekk en déplacement moo tax mu yebal man ak sama responsable de mission yi nga xam ne ñoom ñoo nekk au niveau de l'agence de CSP muy monsieur Abdou Aziz Diop moom moo nekk si budget CSP comme responsable de mission monsieur Abdou Faye Dia mu nekk sama wet moom moo nekk au niveau de Baylaye comme responsable de cuisine ak monsieur Mbaye Ndiaye moom moo nekk nële au niveau de Cambérène nekk foofu aussi responsable de cuisine waaw ñëwoon tey rek pour sargal Adja Kumba si li muy def xam naa ne balaa balaa balaa ñoo dem sax dinañu def ñun tamit suñu kër ñu yóbbaale parce que li muy def moom macha allah dañ ko siy encouragé parce que bu baax la parce que comme li ñuy wax rek nit ku ne wala boom kër bu ne li ñaan mooy am au moins kër boo xam ne ne foofu lay mën a jaww Adja Koungheul boo ci dem aussi encouragé vraiment di félicité di ñaan yàlla di jëm kanam dina yàlla mën a mën a yàgg. gannaaw ma waxee loolu aussi mu nekk moom Adja la présidente du réseau de la femme de la Diaf de nekk aussi secrétaire général au di suñu partenaire dëgg yàlla

suñ ñëwee ñun liggéey financement accompagné donc nag ñu tàmbalee financement bi ak moom si GIE Sopp sa Jëkkër yaakaar naa comme ni ngeen def rek ngeen nekk ngeen nekk si activité boo xam vraiment activité génératrice de revenu la pour au moins loo leen loo leen am di yóbbu seen di yóbbu seen njaboot loolu nekk lu am solo parce que comme ni ñu faral di waxee ñun suñu mission dafa bokk si jàppale surtout jigéen ñi mais si jigéen ñi rek la jàpp

luñ koy yaatalee mooy lenn luñ ko jox gaa baax na mais doyul dañ ko bëgg doole parce que li ñu gis au niveau du de Yeumbeul Comico gis ko ci potentiel bu am solo ay jigéen yoo xam ne dañuy daan seen doole góor ñu aussi si lañ bokk góor ñu aussi jigéen ñi rek dañuy financé sen c'est juste que jigéen yee fa ëpp mais góor ñu aussi dañ leen di financé ñu bëgg nag moom mu def mu constitué ay groupement de dix yoo xam ne ne suñ si jógee bu soobee yàlla yëmbal comico bépp financement bu ñu soxla day ñëw au niveau de l'INSEC ñu financé accompagné ko par des groupes de dix yoo xam ne dañ nekk di daan seen doole pour ñu yóbbu seen njaboot ah dañoo guddal rek comme ni ko wax sànq guddi na wax dëgg yàlla te ku si nekk bëgg nañu ñu si jàmm ak salaam këram. tey nag ñu ñëw au nom de du directeur général monsieur Ousmane Thiombane au nom ñu ñëw ñu ñëw tey pour sagal la indi la benn remise de chèque boo xam ne bu 100 millions la loo xam ne xeeb nañ ko nag yëpp ñu indi ko pour jigéen ñi.

te lu laaj caution donc nag ñun dañoo nekk fii pour jàppale jigéen ñi. wolen na jal yasilolla iye kamɓen kabo ɗum